tijaani sama waay la jamiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub bay loolu noppi waaye bañu na 这个人叫谁吧？搁哪家不分？搁哪家？Get one, make get one again. Mbay keppar rek. déet déet. mbay yow jigéen jigéen ñoo koy def waaye baa ngi def. ñii xoolal noo xoolal ni nga demee nii. côté. waaw. voilà ñu yëkkati ko mu teg ko. dëggal toog ma am. toog toog toog waaw. toog normal. waaw waaw jógal toog toogal ba pare toog. toogal toog lii ngeen di ron. mais nag góorgóorlu te bàyyi si yi ngeen di. xool ñaari tànk boole boole ñaari tànk yi. boole tànk waaw docteur xool docteur mi lay wax xool docteur. xool docteur mi lay wax rek xool docteur mi lay wax rek moo gën waaw. voilà tànk bi jaar na le. dama jàpp foofu tànk Malick. voilà. na ñëw na ñëw ba mel koy uuf rek. bu tànk bi lemu da ngay mel ni ku de. Ah, ñaari tànk na jubanti. waaw déglu leen docteur bi. ay doo waxu si ma moom. toogal toogal xaar xaar xaar. xaar xaar ñu wàcce ko. xaar xaar xaar mbay. baax na léegi toog nañu toog foofu mu toog foofu mu toog la ñuy toog mu jóg. nii du baax na ah wala docteur bi foofu mu jóg. déglu docteur bi li mu wax dëgg baaxul. délégué xool fii sax dafa kii xool docteur xool fii baaxul. waaw xool li mu def. xoolal ba mu bëgg a tax bu fekkee dafa am failure lii ñu def day da koy yónnee yàqu. baaxul xoolal na sigi nga teggi bi. waaw teggi tànk moom la. na sigi na sigi kàddu yow semence la génn sa tànk. na sigi génn sa tànk. xoolal leen docteur ba. na tànk na ñëw na mbay ñëw ci yoon da ngeen yëkkati. non bàyyi tànk yow xoolal léegi sa ñaari tànk yi nii yow nga xëccee ne mbay képpal tànk yooyu non mënu ko tànk mënu képp waaw dama nuyu def mais foog nga foog nga foog nga jub foog nga dellu nii fii ngay bolok teel fii indi baal voilà ñi ngay teel tànk bi bu am na tànk ni ku génn bi génn foofu mu dugg baaxul def na léegi gën a léegi bu dem noonu. mënul lemu mënul lemu. yow da ngay mel ni ku gën moom mu mel ni ku tëdd. voilà. waaw da ngay mel ni da mel ni ku tëddee nii. mbay demal na rek ci porte ba nëb. waaw xëcc ko jël ko mel na koy génne. mën koy yëkkati da ngay mel ni ku koy génne. Ah. waaw génneel mel na ni ku. mbay bul ko sax. bu doon lem tànk bi du. masa masa ah, nag na mel ni ku sigi. mbay sigi voilà si gën léegi bu ngeen toogee fii nag yéenay taawu tànk. léegi boo da nga toog ni nga nga nga. nga wéeru toog dugal na kii dugg na na mu tëdd sa kaw Fallou Fallou mu tëdd sa kaw Fallou mu tëdd sa kaw waaw. non baax na ni waaw. te mën na sax gën a ñëw mën na ñëw. Ahmed da nga teewaale waaw Ahmed da nga teewaale. mbay bàyyi ko noonu mbay kaay. అదే సార్ నేను థ్యాంక్స్ అవుతావు అదే బేరే బేరే fala téye maa ngi téye bàyyi sa yëfu jigéen yi te bàyyi yi noppil bàyyi si moo téye yow tamit nag tëjal waaw du yéen keneen dugaat waaw non non tëjal waaw non non maa ngi toj maanaam ah boobu power bank waaw mu ngi sama saak bu ndaw bi bu ñuul bi mu ngi sama saak waaw caabi mu ngi ak Leydi Guinée Guinée kon. il faut que il faut que mu na pare wala ci kanam rek. ah yow dara bi faral di ful baa weer. waaw li leer nag waaye dama war a comme yow. tey jii dama gën a gën a gën a yaa ngi ne noonu. ci laa mel ni ma. ni ma de defal nii. de defal nii wër na yaa ngi jàll. damul dara kii moom dara. parce que comme tey géej gi géej gi géej gi très bien defaatal géej gi mais defaatal géej gi. mooy géej gi jëm jëm géej gi. nee na kalson bi jëm ko. dafa dagg. dafa dagg foofu. dafa dagg. Hmm? li moom dugal ko ci média bi wax leen ne mbay daa def. parce que gars yi seet si ah, moom. Eh, <laughs> xam nga Ida lan la ma wax. mu ne xam ne Mbaye njëkk def dafa dañoo ñëw. jàppoo numéro Aziz moo def soog dañoo demoon xel comme quoi. fii fan la Bambey waaye xaw naa kii de mais dañ koy dañ koy rajoot xoom lu ñu wax noonu ah. tànk bi moo am problème waaye. Tijaan sama waay la. jàmm ñal jaara bu sub wala man sa jaara.